xalaat bi li ko waral mooy comme ni ma ko waxee sànq ci discours bi day ab seetlu bu ñu euh, ci suñ dëkk bi ñu nekk di Darou Manane tey ñun amuñu lu dul moom amuñu feneen fu dul Darou Manane ñu am ay seetlu yu fi seetlu ginnaaw bu xamee euh, cosaanal dëkk bi li ko li ko li ko sanc ci maam Thierno ci ndigalal Serigne Touba ak jaar-jaar yi fi am. ci lu fi Serigne Touba dund loo xam ne néew ñu dund ko fenn waaye li mu fi dund moo wax dëgg yàlla soo ko dundee feneen bëriwul euh, priorité yi yaakaar naa fii lépp priorité la lépp priorité la moo xam ay yoon la xoolal penc mi ñu nekk tey xool digganteem ak tali bi même pas 200 mètres te gis nga su nawetee pour nga ñëw ci jàkka ji julli si fii da ngay dem ba arrondissement nga jaaree fa doo ñëw fii doo am benn yoon bu praticable buñ mën a buñ mën a def loolu nag ci yi ñuy war a njëkk a gën a taxaw la surtout que lu mel ne ndox mi ñu wax aussi wàllu hydraulique bi forage ñu jàkkaar te forage moo njëkk ci Touba te ci Darou Manane la nekk te fii ñuy wax nii fii ñu nekk nii ci penc mi màggal ba léegi problème ndox dañ koy am te loolu di situation bu doy waar boo xam ne bi bëgg màggal dox nañ ci ay jéego wax ci pour ba xam rek dana réglé wu waaye taxul mu réglé wu. loolu nag moom nañ xam ne situation boobu moom dootuñu ko dundati li ci war danañ ko def taxaw ci ba loolu ñu saafara ko. Euh, waaw loolu li ci jiitu mooy ñun ñu mën a defal suñu may bopp parce que li ma wax sànq ci discours mooy ñun bala ñuy laaj kenn fenn. dañuy tàmbale suñ bopp ba noppi li nga xam ne mën nañ ko defal suñ bopp waaye nag dafa am loo xam ne daf ñoo weesu loolu nag fañ ko war a lijjantee danañ fa dem lijjanti ji ko fa wax ak ñi ci war a waxal d'ailleurs naa ci sax di wax ne bi ñuy bëgg a màggal Serigne Bass Abdou Khadir ñu profité ci occasion bi di ko sant di ko gërëm toogoon nañ ceeg moom jataay waxtaanoon ceeg moom ci problème yi Daaru Marnaan ci yi ñu wax nii infrastructure tali yeeg ak manquement yi fi am yëpp ba amoon ci moom jataay ba sax ci màggal gi am na ay yu mu ci def ndax ci wàllu tali yi jotoon nañoo wax ne am na programme boo xam ne ñi ngi koy def boo xam ne daaru mu naan tali mi ci la bokk. démb rek bi ñu gisantee wax na ma ko nee na ma programme boobu muy avancé te balaa yàgg danañ ko def wàllu ndox mi ñuy wax it boole woon nañoo ko euh, sëñ Moustapha Dieng bu Maaw Rahmati bi ñuy bëgg a màggal ñëwoon na fi yabal na fi ay techniciens mu ñëw xool situation bi réseau bi bañ expliquer ni ñu bëggoon mu doxee nii malheureusement ak màggal gi. taxul woon ñu mën a def liggéey boobu bi ñu fa jógee euh, ay xew-xew am ci seen biir kër gi tax euh, lañ bëggoon def ba léegi defaguñ ko bii rek woon naa ko mu ne woon dana ñëw xay na dafa am gàllankoor moo tax dikkul donc ñu ngi ci ay démarches di ci dox waaye nag situation bi ñu dund moom wax dëgg yàlla suñ ñëwaatee ñoom ba ñu war a régler lool dañ ko régler une bonne fois pour toutes ñu xam lan mooy problème bi li koy indi ñu indi ci saafara une bonne fois pour toutes loolu daal moom priorité yi la bokk ak nag lu mel ne système santé bi poste de santé la woon léegi dañ ko érigé en centre de santé te wax dëgg yàlla ko yi mu nekk nii adapté wul ci ab centre de santé loolu ñu ngi ciy waxtaan ak médecin chef bi d'ailleurs am nañ une commission santé action sociale loo xam ne docteur Mahamadan Lo moo ko jiite ñu ngi ciy def ay liggéey yu am solo par rapport ànd ak ceeg euh, médecin chef bi ak nag wàllu cet gi nga ne dëkk bi comme ni ma ko waxee day buntu Touba li fiy ñëw ci ay mbooloo di soxla lu jëm ci administration wala lu mel ni kër sëñ Touba gi di ci ñëw nit ñi dañoo bari te loolu day ànd ak salte ànd ak leneen ba gis nañ ne dëkk bi am na problème ci yooyu heureusement am nañ suñ commission environnement ñi ngi ci daje di ci waxtaan am nañ ci ay programme yu baax yu ñu tëral lëkkale ko waa dëkk bi ba mbalit dootu seenee ci dëkk bi ñu am système bu efficace boo xam ne noonu lañ koy defee. carte de membre yi waxtaanoon nañ ci ci biir réunion yi ñu doon def euh, ñu ñu proposé woon ay prix yu bari ñu proposé woon ko waaye comme doole yi demut carte yi prix yëpp la am fu sa waay fu sa doole toll rek am na carte wu méngoo woowu te comme li ma ko waxoon sànq la sañ Cheikh Mbacke waxoon la def laaj nit ñi luñ man te di ko def fuñ xam loolu daal mooy suñu slogan ci fànn googu suñ ko defee nag lañ ci am ak bon volonté yi nekk ci Darou naan ak ñi nga xam ne yàlla may na leen ñu nekk ci dëkk bi. ñëpp danañ leen mettre ak contribution pour que ñun ñu mën a am amal suñ bopp d'abord dara ba noppi xool loola lan la mën a def la ko matewul ñu xool ak partenaires yi parce que soo xoolee ñu taxawal fondation c'est pour lu mel noonu euh, man ko mu am ay kayit am li mu war a am pour que ñu mën a am ay partenaires ak ci ci domaine yu bari pour mën a indi liggéey bi loolu moo koy loolu looloo tax. lii ñu def nag bëggoon naa ko leeral sax fii ci kii bi. fondation bi ñuy def nii fondation apolitique la daaray politique nekku ci parce que soo xoolee li ma la wax sànq mooy dafa dajale ñëpp ci daar Darou Manane ñëpp ci Darou Manane politiciens yaa ngi ci ku dul politique a ngi ci daayira yaa ngi ci ñu nekkul ci daayira ngi ci biir politique bi kii ngi far fii kii ngi far fële fa suñu yéenee jël ko def ko loo xam ni dañ koy féetale ci kenn wala mu féete ci fenn euh, soo amee parti daal Darou Manane la